asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi leen nuyu ñëpp kenn ku nekk si turam santam boo leen déggee jàng yi nga xamante ni ah mënaan leen am na xew-xew bu mag bu daal di doon am ñan ñoo ko xewaloo mën a kii di honorable député Fanta Sall kat moo defoon benn ubbitu juma di inauguration waaye loolu kañ fan la amee mi nga amee foofu si Medina Ndiobène ñu gën ko xam si ñaari laam ma ne ah ki nga xamante ni mooy honorable député Fanta Sall nag moom ubbitu jumaa boobu moo ko waraloon waaye nag mu ngi si yebal ndawam yi nga xamante ni mooy monsieur Barry ànd ak seeg ñi nga xamante ànd ak si ñaari làmb bi nga xamante ni mooy Missirah Wadène kon nag bés boobu ah man yëpp tay la ñu koy yëgal waa département bi di koy yëgal waa commune bu Missirah Wadène di leen wax ah, nga xamante ni moo daal dina am di honorable député Fanta Sall moo ko waraloon waaye nag loolu waa fii daal di ànd ak yéen nag nekk na bésu mbégte ndonte bu ñu amoon lu ñu naqari it comme ay jullit lañ dañuy gëm yàlla rek jéem a fàtte loolu ndax yàlla moom lépp lum mu la teg rek moom moo gën ci yow kon nañ jàpp ne lu waay soxla yàlla bu ko soxlaa dangay ñàkk kon lépp loo xam ne itam naqari woon nañu ci dañ koy daadi muñ rek ngir gëm bi ñu gëm yàlla ñu am mbégte nag tay li ñu def ko taxawal ko euh euh ma wax dara nak lu dul population bi nga xamante ni dama leen jité ñu nekk nak population bo xamante ni wax deug yalla mën na la wax ne population bu bu jite jité la parce que population la bo xamante ni mën na la wax ne 100% bi yépp ñëpp daanaka ay jullit lañ dañuy wax la ilaha illallah Euh, su loolu weesoo euh, li may wax rek mooy projet bi nga xamante ne ni mooy Al Ataa euh, comme ni ma leen ko waxee sànq rek ñu am ci ñoom mbégte bu rëy ndax wax dëgg yàlla li def nii dama wax ne ñoom seen mbir dafa pragmatique loolu nag jafe na ci projet ndax ñun ay élus lañ ñu ngi lëkkaloo ak ay projet yu bari ba fii may wax ak yow am na projet yoo xamante ne nii ñu ngi lëkkaloo ak ñoom ba tey jii mooy ñetti at mais ba tey mënaguñoo jël benn xeer teg ko nii la ñuy lii ñun ñoo ko def lépp rek ñu ngi koy teg ci ay procédure procédure yoo xamante ne nii nag day jël temps mais ñii mën naa wax ne bi ñu dugalantee ak ñoom ak léegi bu matee 6 mois ci la yem xam nga 6 mois nag ñu defal la lii lu mel nii te ñun ñu nekk ñoo xam ne ay jullit lañ ñu ubbee ko lii te ñu xam yeneen ak yeneen yi ñuy yëngu kon ñun dañ ciy sant gërëm te am ci ñoom yaakaar euh, di gën a sàkku ci ñoom ñaan rek di leen gën a ubbil suñuy bunt te itam di leen sàkku itam ndimbal fii ak fi ñu jëm euh, comme li ma wax sànq rek ndax maanaam képp kuy suul jëf euh, daa fekk yow nekkoo nit ku baax man loolu laay wax te itam amut benn doomu aadama bu xëy am dara te nekkut yàlla moo la ko jox waaye nag lu la ko yàlla jox jox daf lay booleeg doomu aadama lii nag bu ñu ko amee tey man du ma wax ci commune Missirah rek mën naa wax ne sax dana law ci département bi ndax ki nga xam ne nii moo ko dox ba indi ko ci département bi muy honorable Fanta Sall ñun buñ ci jotee wax dëgg yàlla c'est grâce à lui wax naa ko projet bi kon loolu duñ waxuñ ko ngir wàllu politique a tax ñu koy wax dañ ko wax parce que dafa nek réalité bo xamanteni ni dafa am man nak honorable ku ne xam na ne yalla moma bolé ak mom mais man aussi lu may wax ci nit day fekk lima gis mom lay wax lima xam mom lay sédé ndax ëlëk sama bammel mako mom té dama koy dem di ko fekke te dama né ñun yag nañu am ay responsable nek fi ak ay nek fi ak ay responsable mais wax deug fa yalla jom bima gis ci mom ak bëgg ndam bima gis ci ak bëgg nit bi ma gis ci moom jafe na nga gis ko ci responsable li may wax nii yàlla rek moo tax ma di ko wax li ma gis ci moom laay wax parce que yàgg nañ fi nag wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne département bi ni mu doon doxee mais bi ñu ko falee honorable député ak léegi su ngeen koy suivre bu nekkee assemblée national toujours mu ngay wax te buy wax département bi yëpp lay waxal kon kooku kat ah wax dëgg yàlla gàcce ngàllaama nit ki même bu fekkente ne neexut la lu baax li muy def na nga ko wax ndax tey wax ci li mu def man wàññiwut ci sama doole wàññiwut ci sama sa li may doxal dara te itam du faiblesse parce que nee naa nit mënoo xëy xëy dem indi dara te nekkul da jaar ci nit gon lii du ma am benn kersa xam ne bu ma ko amee c'est grâce a honorable Fanta Sall parce que moom moo ma boole ak moo ma boole ak ñoom ba lii tey ñu réaliser ko mën naa wax ne sax bañ ciy wax maak moom dañ ci doon dama ko doon jàppee sax day kaf rek ñu ciy ree yaa ngi dégg gon mu nekk loo xamante ne ni man de parce que gaawaay bi ni mu ma ko waxee woon ak ma gis ay projet yoo xam ne maa ngi lëkkoog ñoom boobu ba léegi ba tey dara lépp mu ngi ci procédure bi mu ma waxee gaawaay beeg yépp wax dëgg yàlla au départ dama foogoon ne dafa may tooñ rek kon loolu nag bu ma ñëwee ba fii génne ko waruma ci am kers dama ko war a wax rek parce que loolu moom mooy dëgg loolu laa gëmoon te loolu am na kon daal xamal leen ne soo gisee tey ma toog fii di leen xaar ba heure bi tey jii may wax yow Koungheul googu dama fa am dëj parce que mat leen caw moomu ñoo bokk benn deret xale bi faatu sama rakk la tey kenn warul ma fa woon jiitu maa waroon a taxaw lépp parce que tey François boobu tey man maay rakkam bi ñuy ñëw fii euh, bàyyi mat leen sama maam moo ko indi fii moo ko jëlee bawal indi ko fii ñu nekk fii ba yàlla def tey lii yépp meññ fi ne kon tey boo gisee ma toog nag ba léegi ma leen di xaar dama xam rek maanaam am na loo xam ne mënuma koo bàttale il faut ma xaar leen ba ngeen ñëw ak lu mu xat-xat loolu ma seddal leen ko seddal ko population bi fi nekk eh, di ñaan yàlla nag moom ci boppam nañ ko ñaanal yàlla guddal ay faram ndax ndaw la eh, te politique fii ku ko ku ko gis xam ne nekk na politique bu méttee métti boo fi nekkee il faut nga soxla ay kilifa yu lay ñaanal waaw te moom nag wax dëgg yàlla jël na tànk yoo xam ne ah man de gëm gis naa ci moom bëgg ndam boo xam ne buñ ko ñaanalee rek yàlla mën nañoo dimbale bu amee li mu bëgg ndax nag booy booy booy booy jàppale jàppaleel ki bëgg ndam de booy jàppale jàppaleel ku am jom kon loolu moom moo am solo ndonte nag dañuy def politique waaye nag nañ def politique de vérité parce que man damay wax toujours ne ñuy wax ne politique agul alaxira tey de lii ku ko wax xam nga ne xam nga ne ku wax ne ku agu alakhira te goko fen ndax li politique moko fi indi te ci islam lay yëngu kon nak ñaari buntu mo ci ne yow yaay xol bu la neex nga copte parce que bu fekke yow dañ la fal nekke wo fi dara lu dul xas nit ñi jaay nit ñu doole jël seen alal lek koku benen yoon la mais bu fekke dañ la fal lo am nga fas yéene bokk ko ak nit ñi te yalla rek tax yobbu ay nit mak ku febar nga faj ko projet nga indi leneen nak leneen nga indi dama ne politique boobu politique bu yàlla gërëm la kon nañuy bàyyi di wax politique yeggul alaaxira man bugguma loolu parce que nag ñaar yooyu moo ci ne yow yaay xool nag ban nga ci choisir xam naa wax bi sax gudd na euh, waaye nag comme lii itam ci doxalinu politique lañ ko doxee ba mu ñëw wax dëgg yàlla buñ toogee ci barab bi itam yàqut ci dara ndax li ñuy def ni yàgg na alaaxira ndax lu baax dong la kon loolu moo tax ma ciy seedeel kàddu yi en tout cas daal di ko gën a ñaax moom ci waxam yàlla man maa yàlla xejal ci xolam bi muñ mu gën di muñ parce que itam ku jiite nekk ndaw dañ laa war a ñaanal ngay muñ parce que suñu suñu suñu gox bii képp ku dul muñ su yàggee rek danañ soppi sa jikko loo xamante ni buggoo ko wawoon def nga def ko ndax da nga yëkkati lu baax di ko def te mu wóor la yow ci sa biir xol lii pour lu baax rek waaye ay yàqkat ñooy jóge fale wax ko ñaawal ko ba mu ñaaw dafa am sama benn kilifa léegi bu doon waaraate ñu muy waaraate may woon ci leneen waaye bi mu duggee ci wàllu politique waa dugg xas se rek dama gën a déglu dama ko gën a déglu parce que lu tax li mu wax dafa am solo man de mairie bi bi ma koy wut rusuma wax ko ci xam nga dew ma beneen commune di jëw mais damaa toog sama biir population na am kenn ku taxaw ne bi may wut commune bi jóg naa xas kenn wala saaga kenn sama programme laa yor ñëw présenter askan bi defendre programme boobu ki fi nekkoon it damaa jàppoon ne li mu yor maa ko ko dàq mais du question dama ko bañ ci loolu it xasuma ko saagawuma ko yàlla def yàlla may ma ndam fi ñu jëm ñi itam ñiy jóg di wax lu ñaaw di xaste ku ci wax dara itam man de ci ju jumaa ji ma toog tey baal naa la te yàlla tax lu waaye wax ci man baal naa la te yàlla tax li may sas sama xol daal yàlla na ma yàlla gën a may xolu bëgg ndam ak it lépp lu sama askan bëgg yàlla bu ma yàlla soppi ci yéene bi ma am pour sama askan man loolu rek laay ñaan euh, nit ki nag eh, kenn mënut man lépp waaye comme li may wax toujours rek politique itam comme sànq di ko waaraatekat ki waxee nit ki ñàkk ànd ak yow taxul mu nekk sa noon loolu nag dama koy wax pour ñëpp parce que nit aussi mën na ñàkk bokk ak yow gis-gis loolu politique ñàkk bokk gis-gis rek la waaye nag bëgg nit ki ngeen ñàkk bokk gis-gis itam nga bëgg a jàpp ne sa noon la politique dafa am ñett yu ciy dox loolu dafa jaar bàyyi xel am na koo xam ne bi nga jógee di wut dangaa fekk mu am ku mu àndal ba pare kooku mënu ko bàyyi ngir ngoram fekk daana wut du ko bàyyi am na koo xamante ne nii moom dafa toog fee rek résultat lay xaar bés bu gisee liñ la jox def nga ci résultat fam nekkoon mu bàyyi ko ñëw ànd ak yow am na koo xamante ne nii dafa politique ngir dafa ñëw ànd ak yow ngir damaa mere kee bëgg gis naa ci yow yaakaar damay ñëw pour faj ci yow mer kooku dafa nekk ci politique am na koo xamante ne nag moom intérêt rek lay lay dox bés boo gisatul intérêt ci yow wëcc na la fa ñuq dem feneen ñii nag ma lim ñett ñi ñëpp mën nga leen am kenn rek nga mën nga mënta am muy kii juróomeel kii juróomeel ki nag kooku it yàllaa koy def ci nit waaye su ko yàlla defee ci nit ñu ñaanal ko ci yàlla yàlla soppi xolam ba mbañal boobu dëñ am na koo xam nag day gis ni rek du ko neex jamaa sax bu ko defaroon mu ne mu ne jamaa bi am na am na am na am na pepp suuf kon kooku rek nga mën a jàpp ne mënoo ko am mais ñeenti yëpp mën nga leen am kon képp kuy jiite itam defal ci sa xol jéggale ak yaatal sa xol ak muñ ndax boo ko defut léeg-léeg nga noon ak koo xam ne sax waroo woon nooneek moom ndax xëy na ñàkk waxtaan rek moo ko waraloon wala mu ñàkk la xam nit mu lay contre te du la xam te saalum fii loolu moo fi bëri kon loolu rek dama koy wax nag pour ñaax ko ñépp man daal man mustafaa ku ma gis nag ak sama xadar ak sama yaram yu dof yi man nga maa xoolee lu nekk ak sama kanam gu ñaaw man ngaa xool lu ne muñ sama xol waaye sama xol bi li ci ne li ma yéene sama bopp lu baax moom laa yéene ñëpp wax bi nag wax dëgg yàlla euh, leer na tey bu ñu nekkee ci néeg bu tedd bi wax nga ko sànq ba ne yóbbu nit màkka ajaratu ami ndaw gi nii toog dem na ba ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te honorable député moo ko yóbbu woon kon am na solo boo ko waxee rek dañ koy gën a serreel pour nit ñi xam ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen li nga wax nag am na solo yow it taxawaay bi nga am en tant que ndaw ndax maire nga mais ndaw nga ci maire yi nekk ci département bi kon li la dese bëri na ba tax na yaa ngi liggéeyal sa askan loolu tamit euh, dañ ci dolli ne rek uude lu mu wax ci bëy bu feebar rek ñu ne der baa tax waaye du loolu li nga wax ci Fanta moo am li nga wax honorable député moo am waaye yow it li ñuy wax ci yow moo am engagement bi nga am ak autorité bi nga am ak simplicité bi ak li nga xam ne mooy relation yi ba tax sa commune bii lépp loo xam ne département bi am na ko nga bëgg mu am ko wax dëgg yàlla moo yombal sa diggante ak honorable député Fanta Sall waaye boo ñëwoon wan ko leneen wala mu nga gis ci moom leneen ngeen ñàkk fayda kon lii du am kon ñaari laam duñ jot ci lii yéen it waa ñaari laam ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye ñu ngi leen di gën a dénk kii la jàmbaar la de ndax fa mu war a da koy bañee tudd xuloo fa mu war a defee dafay defee tudd xuloo loolu ñun xam nañ ko ci moom ñun ñu sori kon yéen ñi ko ñu ngi leen di ñaan ngeen gën ko déglu bu baax li mu wax ci discours am lu am la te lu leer nañ la ndax bu ñu wax dofee sax nit ki war nekk nit dégg wax ji te li mu wax lu am solo la ci politique nag politique nag indi fi diine ji moo fi indi ak lislaam mais politique ak li nga xam ne mooy àddina mooy fexe ba sa talaata dàqal la sa altine te lii ñu def fii tey mooy talaata dàq na altine jumaa ji ndax xañ na amoon na fi wala amu fi woon wala bu jàkkala wala nangam amu fi xam-xam bu bari waaye xam naa ne tey moom talaata dàq na altine fii tey ci jëmm ji moo ko waral ak partenaires yi ak honorable député dañu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla saxal ñu jox imaam mu sànni kàddu bu ñu paree sëñ Ibrahima Mbaye ci kilifa diine yi moom it ci turu Fanta mu sànni ci xam naa ni ñu jóge yeewi jataay bi ndax yitte tey bari nañu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci ndigalu suñu kilifa muy al ci la ñu jël kàddu gi moo ñu ko wakil ñu ñaan yàlla nag be ni mu ko bëggee yàlla nañ ko mone noonu yàlla nañu yàlla may leerug làmmiñ ba ñu mën a wax li nga xam ne moom la sakku ci ñu pour ñu wax ko awalan wa qabla kulli in imaam nee na mu ngi sant yàlla mu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin mu ngi sant yàlla ci mbooleem xaaj yi ñu war a sante yàlla yépp imaam nee na mu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ginnaaw loolu mu ngi sant ñi nga xam ne ñoom lay yàlla jaarale liggéey bu réy bi ci seen loxo imaam nee na yonent bi moo wax ne ku dul sant nit ñi nga xam ne ñoom la yàlla jaarale xiwal bi ci loxoom doo sant yàlla kon imaam nee na ba mu sante yàlla ba pare mu ngi sant ñi nga xam ne ñoom la yàlla jaarale xiwal bii bi mu ñëw fii ci Medina Ndiobène ci commune Missirah Wadène ci département Koungheul ak képp ku mu neex imaam nee na ñeenti dinañu feyeeku ci lu baax ki wax ba mu baax dina feyeeku ki def ba mu baax dina feyeeku bi mu baaxee ki euh, ki mu neex dina feyeeku kenn rek moo perte euh, monsieur le maire wax na ko léegi mooy koo xam ne mbir ma ba mu baaxee sax neexu ko yal nañu ci yàlla musal kooku salcaan mu muur xelam rek yal na yàlla muri ko waaye ñi wala wax ñi def ba mu baax ñi wax ba mu baax bi mu baaxee ñi mu neex ñooñu ñëpp yal na yàlla fay leen yal na yàlla bindal leen tuyaaba kenn ku nekk boo bàyyeekoo fii yal na fekk set nga wécc ci bakkaar comme liir buy door a juddu ci ndeyam yàlla mën na ko yal na ko def ah ñu ngi wax politique nag waaye politique mooy lan mooy gëstu jafe-jafe xeet wi te taxaw nag ngir jafe-jafe bi faju a siyaasa al bahsu an muskilati umma wa saayi li xalliha la xay leneen amul gëstu jafe-jafe xeet wi taxaw nag ngir jafe-jafe boobu faju bii de tey faju na beneen bu ñëw yàlla na faju alhamdulilahi rabil alamin bii de faju na alhamdulilahi rabil alamin ñooñu nga xam ne ñoo ci yëngatu yépp nag ak ñi mu neex yonent bi nee na yàlla li mu leen di feye mooy yonent bi moo wax ne kepp koo xam ne tabaxal na yàlla lu toll ni tagam picc ci kaw suuf yàlla tabaxal la sato ca aljana kon ñooñu ñépp xataa mbir mi ki mu neex dina am sato yal nañ ko dëkkee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam nee na mu ngi sant euh, soxna si man nag dama kontaan ndax ñu gis naa képp ku dugg si ci jàkka ji rek balaa nga toog def nga ñaari rakka am na ñoo xam ne sax dañoo wax ne may leen ñu beesal suñu jàpp alhamdulilahi rabbil alamina yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen allahuma unsur man nasara diin wax sul man xasalal muslimin eh, yëngatu bi nag bari na te lépp maa ngi koy wax nag ci kaddu imam moo ma ko déy ne naa ko wax waaye dinaa lottu nag pour ni mu ko waxee képp koo xamante ne kii yàlla nam na jaarale xiwalu jaam ñi ci sa loxo yal na nga falu képp koo xam ne am nga yéene itam pour li maire waxoon ñii dañoo xeex yooyu yëpp yal na yàlla soppi seen xol benn nooyal leen ba ñu jóg ngir jariñ xeet wi yal na ko yàlla def ci barke yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñun nag ay dongo daara lañu diine ji moom képp ku ci def sa loxo boo yëgee boo yëgul ñu ngi lay ñaanal lay la wanhaara yonente bi moo wax ne nit ki sax boo ko soppee bul ko ñaanal ci kanamam ñaanal ko min wara min zahril xay bi min zahril xay bi min zahril xay bi kon bu baax ñu bari dañoo dégg seen tuur ci xamuñu leen imaam nee na mu ngi ñaan képp koo xam ne def nga sa loxo wala nga sa yéene wala loo mën a def ba jàkka ji taxaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen même ci wàllu développement liy jagal réew mi dëkk bi di ko jëmale kanam imaam nee na yal na yàlla yëkkati la bi ca kaw yal na yàlla xaar la yal na yàlla suturaal la yal na yàlla dëgëral taxawaay yi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, du ñu mën a euh, ñàkk a ñaanal nag suñu kilifa alhaaji daawud rahmatullahi alayhi ak suñu rak bi mu bokk te fofu ci penku juma yalna yalla yereem leen yalna yalla xare leen aljanna yalna suuf sedde leen allahumma ighfir lahumā wa 'afihumā wa 'fu anhumā wa ighsilhumā bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunqa sawbul abyad min hadan nas wa askinhum fasih al jinan jiwar sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam soxna si ñu ngi lay ñaanal yalna yalla taxawula te nak diina ba mu départé dafa départ rek jigen départ top ci kawam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy nekk ca xaaru Hira ba Jibril feeñu ko fa ba mu ñëwee jigéen moo ko tatagal jigéen moo ko tatagal kon jigéen buy dox di wax ba lu mel nii taxaw kon alhamdulilahi rabil alamina yal na yàlla yëkkati leen ba yóbbu leen ca daraja xadijatu radiallahu taala anha e ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla dëgëral fi nga bëgg a yóbbu commune bi yal na yàlla def lu kawe sa njortu ak mbooleem ku lay jàppale dëkk bi yal na fi yàlla def jàmm jubóob gi yal na ko yàlla yokk waaye nag imaam nee na procès bii nga xam ne moo tabax jàkka ji mu ngi koy ñaanal ñi nga xam ne ñoo dajale seen alal di def yépp bay tabax ay jàkka ay dem loolu yonent bi wax ne ku tabaxal ja yàlla lu toll ni tagam pitax yàlla yàlla defal leen yool boobu mu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen tallaat ay loxo ni ko monsieur le maire waxee ci yeneen yi nga xam ne mun naa eh, dimbale julit ñi bu ko defee imaam nee na jumaa ji nag duhut waa Koungheul moo tax ñu tabax ko duhut waa misra ñoo tax ñu tabax ko waa Medina Njoobeen di ñaari laam ñoo tax ñu tabax ko nañuy julli si nañuy julli si imaam nee na bu ñu boggee nag yàlla du ñuy jëppi nañuy julli si waxtu yi ko amul ngant boo déggee nodd bi ak boo ko déggul ndax rajo mën naa paan dañuy julli si jullit day julli loolu moo tax ñu tudde ko jullit te mbooleem yi nga xam ne moo ñuy jax-jaxal inna salaata tanha anil fashaa'i wal munkar inna salaata tanha anil fashaa'i wal te julli mbooloo oppe a julli kenn nit ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar waaye mbokki jullit ñi bu ñu tukulóor yi bu ñu leen waxoon ne oto baa nga fale ku dem 27 sac de riz lañ lay jox waaye boo xaaree ba mu ñëw sa buntu kër benn saak lañu lay jox yaakaar naa ñëpp dinañu wuti oto ba kon nañ imaam nee na nañuy julli si ci jàkka ji te yàlla yàlla yàlla fay leen yàlla leen tuyaaba xam naa ni ko imaam waxe woon yëpp duma ko mën a toppee noonu waaye daal li ci eh, des suñu gàtt àllu wala man nag seen dongo laa ma Mamadou Faye man may secrétaire sénéral bu association sëriñ daara yi ci département Koungheul kon léegi ku koy def ñun suñu xol def ci def ciy sedd yàlla na yàlla fay leen yiw yàlla bindal leen tuyaaba asalaamualeykum wa rahmatullah li ko ci lii ñu waxoon kon ñu ngi jox kàddu gi euh, borom dëkk bu ñu paree jox sëñ Ibrahima Mbaye ci délégation bi doog a jox euh, monsieur le maire ñu mu yeewi jataay bi alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa mbokki jullit yi maa ngi leen jéggalu di leen baal àq di leen baal àq ñaan jërëjëfee suñu baay Daawuda Jóob moom mi liggéeyal yàlla ba lii yëpp feeñ moom mi tëdd liggéeyal yàlla ba lii yëpp feeñ liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëfee sunu baay alxaaji daawuda Jóob ah, alhamdulilah mu <clears throat> ngi sant yàlla di julli yonent bi sallallahu alayhi wa salaam di sant suñu ñaari waajur yi di sant mbooloo mi toog fi ci saahir ak ci baatin wa saahir ak ci baatin di sant sunu meer lii yëpp moo tax ñu am ko waaye nag di ko dénk yàlla dénkuñ ko kenn yàlla lañ koy dénk te yàlla dina nangu loolu incha allah di nang di di ko yokk muñ di ko yokk ñaatal amul kañaan xol bi kañaan nekku ci xol bi soxor amu ci te képp ku ko képp ku nekk ci commune gi xam nga loolu maire doo ko fekk mu mer maire xàmmeewul kii ku far ak moom ku farut ak moom kim àndaloon nag sama rakk la ñoo bokk ndey ak bàyyi sant naa yàlla koob ci moom bàyyam gërëm na ko ndeyam gërëm na ko surtout man ba mu doxee bay indi lii dama naa maire de am na lu mu teg sama loxo waaye nag nee na ci fant sàll la jógee jaaraama fant sàll na ko yàlla yokk ànd ak fanal ak wér te ab yéene doomu aadama day am yéene mu amul amul yéene amul pasteef amul dara sama bàyyi dafa wax ni Moustapha mën a naam ba muy ñett yow mu a dëkk bi pasteef a ko sanc te pasteef moo koy mujjee te kenn du ko mën a yàq ci kaw suuf képp ku bëre seetaan koo xalam li nga bëgg dina am ci dëkk bi incha allah te maa ngi dem teg naa la fi yàlla na la yàlla taxaw am naa lool ci kàllaama talaata alarba alxemes yàlla yóbbu ko beneen bi des mooy li ñu wax ci imaam ba mu ñëwee sama baay seet na xelam nattu xam-xamam natt yëpp na leen kaay leen ñu ñëw mun a maam mi doy na muy nekk sama pegg su ma jiitee su ma te su ma mënul tey mu jiite yàlla tey fal na ko tey ñu noonu kon lim yàlla guddal fanam wéral ay cëram te lépp lu yàlla di wax ci imaam mu nekk ci moom yal na ko yàlla def Fanta Sall ñun waa mi Médina Ndiobène dañ laa xam ba dara amagul waaye meer a tax ñi xam ko ba dara amagul ci meer kon ñun yàgg nañ koy xam parce que ñu nekk nañ ginnaawam ñu bokk nekk misira nekk xale def lu ne te lépp lu baax lañ ko xam ci moom kon bu toogee fii di wax lii dafa mel ni dañ koy gën a dëggul dëkk bii nag Medina Ndiobène la tudd waaye boo demoon ba Mourtani boo ne Medina Ndiobène duñ ko xam boo demoon ba Ndakaaru wala Mourtani wala foo dem wala Niger wala foo dem ñu ne Medina Ndiobène duñ ko xam waaye boo ne ñaari laam wallahi tallaahi dañ lay jox loxo ah góor ñaari laam salaamaaleykum wa rahmatullah man doxkat bi xam naa ci loolu parce que yàgg dem dem xamuñ ma sax ne góor gi mooy sama papa waaye suñ ne ñaari laam dañ may teral ba mu teral boobu su ma ne góor gi mooy sama papa nag ñu soog may jógu teg ci place boo xam ne macha allah kooku doy na sant yàlla am naa rakk boo xam ne moo ànd ak moom da koo gërëm sama kanam ba mu ànd ak moom da ko wax ne Moustapha man a naam mu ne ma man damay dem waaye am naa ku may yóbbaale man Moustapha am naa ku may dem am na ku may yóbbaale ma ne ko man de sébbab safara la mu ne ma xajja neex na de Jóob ma ne ko neex na lool mu ne ma yoon wi juróom-ñaari àjjana yàlla tànnal na ma ko wan ko sama loxo billaahi wallaahi tàllaahi si ron mbaar bi ma ne ko ah, man de dag ma fi bàyyi mun a ah man ki may ki may waajal dem na pare nañ ba ci ngoon la ma ko jox ma sama caabi ma yëkkati caabi jox mu ne Babacar sa dex kaay mu ne mu ne fu ma yóbbu yóbbu fu ma jëm yóbbu ma fa ma ne ko papa loolu garaaw na de mu ne ma xaj maam moom sama alal am foofu moo jëm yóbbu ma fa kon ma leen di xamal ne dëkk bi alhamdulilah moom moo doon wax ne Moustapha du ma woote wu ma doomu adama yàlla laay wooteel wootuma doomu benn doomu aadama boo xam ne day ñëw ci dëkk bi naan nangama siikar naan alaaji daawuda nangam bu ma dee dem safara duma ko def damay woote ci yàlla ba kere ba may dem àjja ba may dem àllaaxira yàlla te ma def ma àjjana yóbbu ma àjjana du ma woote na man sëriñ laa te képp kuy taxaw fii te loo ma ci dee deewu la ma ne alaaji daawuda maa la wax loolu man Moustapha te loolu am na war na ma ko ci meew ma topp nekk doomam waaye damaa futteeku woon nekk taalibeem man bëggu demoon naa ba xam ne nekkuma doom sant naa yàlla foofu di sant waa dëkk bi ñu neex dëkkat lañ loolu moom maa leen koy seddal li amul benn burwe te xam naa ni mustafaa ma ni sa xel na dal incha allah sa xel na dal foofu sama baay bëgg na la ba ñaanal la yàlla lool te dëkk ñun bëgg nañ la te dëkk bi daañ la bëgg incha allah Fanta Sall jàppal ma Moustapha Moustapha jàppal Fanta Sall incha allah li ñu wax nii da ngeen am lu raw seen njort ci fi ngeen toog man nag doomu doomu da alas daawuduloo man may taaw waaye nag man maa leen di wax ne su ngeen tëddee seen xol na sedd allah li ngeen yaakaar yàlla dina ko def te daañ ko ko diis ba mu yëg ko incha allah ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, damaa ñaaw nag neexumaa xool waaye nag yàlla ngi ci kanam nañ gis yëpp yàlla rek incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yow it di bu baax euh, di wax ne euh, wax nañ ko sànq sëñ bi wax na imaam wax na borom dëkk wax na ñu nit suñu xel dal na ñun ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañuy ànd ak honorable député di liggéey ak moom ay mbokkam ak ay am di jàmm ay xaritam ay mbokkam na ñoo ci gën a néew ñu ni ànd ci délégation bi kon yaakaar naa ne bu ñu ñëwee dégg lii suñu xol sedd na kii nag jox na leen ndékki jox leen añ joxe njogonal mu des reer bi nag bi nag le 23 janvier bu passé yaakaar naa si la ko monsieur le maire di joxe ci commune am dégg naa li ngeen wax nag waaye ñu nit yóbbante honorable député ci yéen ndax fas lu mu daw daw ñu làbbali ko carte yi ñu joxal ñu ko mu Moustapha Ndong le 23 janvier xam na nit ñu duy duutu ci baaraam mais man maa ko ciy duut ndax honorable député loolu la bëgg képp koo xam ne président Macky Sall doyloo na la ba teg la fa ñu jël suñu carte yi jox ko ko ànd ak moom kon monsieur le maire ñaari laam dinañ déglu seen résultat honorable nag nee na teg na fi jumaa ji wax naa leen ne leen ajaratu bi dem na màkk te bëgg nañ ab ji di jullee fii te loolu yëpp mébét bii kii mën na loolu honorable député mën na loolu kon ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allahu rabbi bu ñu 23 janvier ba pare commune mak euh, misira ki tok ak honorable député tegal ko ay programme pour commune bi mu jëm ci li nga xamné moy diiné ak kon monsieur le maire warit ñu ngi lay jaajëfal bu baax waxo ko may way man makoy wax ndax mbir mi fofu lañu tollu comme li ñu wax né dañuy wax la politique et le spirituel diiné ji ak li nga xamné moy nasaran bi motax ñu bolé ko kon ñu ngi sant ñep di wax né li nak yaakaar bind kat yi dinañ bind kat yi dinañ wax buñ ne Fanta député la liggéeyut wala lan la liggéey tungu na di teew ñuy nataal ku gis nen ne nen a ngi 2017 ba 2021 mu nekk ko député nekk ndaw lool jamono ji ñuy wax ak yéen ma nga Espagne ci ñaari député yu ñu tànn ci Sénégal mu dem fa mission bu mag am fa fukki fan ak nangam yaakaar naa ñëwagut kon loolu doy na sant yàlla li mu mën nag mi ngi koy def te yaakaar naa def na ko bu département bi yëpp di ko gis lii am na Koungheul am na Gent Pathé su ma juumul ak yeneen ndox nag ak lislaam ak diine yaakaar naa moo gën ci doomu aadama booy judd dañu lay tuur ndox boo génnee àdduna ñu tuur la ndox defar na ay teen yoo xam ne ay robinet yoo xam ne da ngay ñëw root te doo am jafe-jafe Koungheul robinet day tëj waaye population bu bari yëgatuñ ko mu def jumaa ne su ngeen jàppee ci ndox mi dugg leen ci jumaa ji julli kon loolu dal ne sant yàlla sëñ Ibra kilifa yéen la man nag ci côté politique bi laa doon wax rek waaye fàtte woon ñaari chauffeur yi ñu àndal muy ak seeni parce que ñoom ci staff bi lañ bokk ci fanta lañ bokk kon ñu jox la kàddu gi rek nga wax ci kilifa yi alaykum wa rahmatullah di len balu ak di len bal ak ni yan yalla yalla ni yalla boole bal ñun ñep te wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jale suñu baye Daawda Jóob yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla xare ko àjjana doomam bi moom xamante nañ bu yàgg taawam bi moo ma mag moo bokkoon léegi bay ay xarit leen ay wëral leen foofu laa ko xamee kon kon yaakaar naa xam naa ko ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla na yàlla yaatal bàmmelam yàlla yàlla leeral bàmmelam yàlla na yàlla barkeel kanamam leeral gannaawam bi jaayin bi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam li mu fi bàyyi yàlla si yàlla def barke ñu ngi ànd ak benn ustaas ku xam ne ku bari xam la manki rek mom mokay mot motali incha rabbi rabbi borom xam-xam la ñi dañuy wax ci turu Fanta Sall rek di wax ne si kaddum la waxe li tay tey moo fi yebal ñu ñew taxawal ko fi ki nga xamne tay moy magam mo ngi ne tok moy soxna Mbombe tay tay mo fi togal Fanta Sall ndax ñom ñaar ñoo bokk ben bay moy magam kon tay melni na mu ngi fi tew mu ne ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp ndax teway bi kenn ku si nekk yaa ngi bàyyi sa yitte dagg sa yitte ñëw pour teewal ko fii moom mu nekk ca Espagne kon loolu am nañ ci kontante bu baax a baax di ñaan yàlla nag yàlla dëgëral ko ngeen ñaanal ko yàlla yàlla dëgëral ko bu baax ambition bi mu am yéene bi mu am ci département bi ak population bi yàlla may ko kattan dëppale ko ak projet yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel yàlla dëppale seeni xol ba lépp lu sàkku ci ñoom yàlla defal ko ko ndax njëriñam mooy njëriñu askan wi ñun de wax dëgg yàlla bu ñuy ànd ak moom gis fi mu jëm moo tax xam ne ne ko am njëriñ la ndaw la loo xam ne ba mooy nekk ndaw suñ kanam la ba léegi ñoo bokkoon benn koñ boo xam ne suñu kër yi parce que benn benn ci dox kon xam nañ ko bu yàgg ba mu juddoo ba tey ci lu baax lay dox ci lay yëngu dimbale nit ñi am na nu mu doon mel tey ay lijjanti ay kër lay lijjanti lijjanti ay soto moo fi def immeuble bii kenn moom lay wax ne la moo fi def lale loo xam ne moom moo ko moomal boppam moo tabax jumaa ji moo def teen bële moo def mini forage bële moo dimbale way néew gi doole ji lafa ñi ma wutal leen ay puus puus yu ñuy doxee loolu kon kooku ku ne xam na fi mu jëm am na njëriñ lool dañoo bëgg ngeen ñaanal ko yàlla dëkk bii dëkkum ñaanukaay la xam nañ góor gi bu baax ngeen ñaanal ko yàlla yàlla yokk fanam yàlla may ko wér yàlla musal ko ci cat nit nag kuy def lu baax am na ñu nekk ci gannaaw di la xeex comme li ko maire waxee loolu def lu mu baax baax am na ko xam ne mu ne lii li politique la waaye lii moom ko ne xam ne du politique jàkka jàkka yàlla la kenn du wax ne jàkkay Fanta Sall la ja wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a llahi ahad kon ku ne xam ne ne jàkka jii bu xasee pare ñi koy jullee ñoo ko moom kenn moomut ko jàkkay diw jàkkay diw loolu amul jàkka moom yàlla moo ko moom wa anna al masajida lillah kon nag wax dëgg yàlla bu dee politique lay dem politique bu rafet la ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ñaan yàlla yal na ko yàlla dooleel ngeen ñaanal ko yàlla ñaanal ko ñaanalaale maire bi nga xam ne moom la ko yàlla booleel yàlla may leen ndam ndax moom kat fépp fu Macky Sall la joxoñ fa la joxoñ kon nag nañu ànd ak moom ci loolu kaddu yi nga xam ne moom laa doon wax man xëy na mënumaa wax li ciy dëng na ko oustaz bàcc mi mottali borom xam-xam bu mag la ngeen déglu ko si xel bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin seydina muhammad wa ala wa sahbihi wa sallam bokk yi tedd yi waa ñaari laam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di wax ne sunu kilifa la sunu mag la di sunu nijaay xam naa dafa li wax rek doy na wax dëgg yàlla ndax li wax ëmb na lépp gannaaw loolu gannaaw bi ñu nuyoo di jaale nag sunu waajur boobu nga xam ne moo wàññeeku ci anam boo xam ne dafa bokk ci ñeenti anam yoo xam ne yonente bi nee na képp ku bokk ca xeetam boo sa sa génn àdduna bu demee noonu yow dangaa sahid dafay mel ni dangaa dee ci xare alxarix ci la bokk ak alxarix ak euh, almayit taxtal mi wal maptuun mooy ku biir buy métti rey moo xam day matu moo xam biir rek la beneen bi mooy ku lab dee ci ndox beneen bi ku dee ci accident beneen bi koo xam ne dafa dee ci làkk yonente bi nee na ñeenti dee yi képp ku ko faatu ci xeetu yonente bi maanaam dangaa sahit kon loolu day tegtale ne maanaam moom mbaaxam yàlla yégal na ko ci daraja suhadaa yi képp koo xam ne yàlla bëgg na la yégal ci daraja suhadaa mën na la jaarale foofu yaa ngi ñi sahi doon ci xare ya yéen a bokk yem gannaaw loolu ñuy wax rek ci comme ni ko sëriñ bi doon wax sànq waxee <clears throat> diggante muqaarana diggante politique ak diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon na loolu alquran jàngale na ko ndax yàlla waxoon na wala tansa nasibaka mina dunya waaye yonente bi waxoon na itam imal di dunyaaka ka annaka taisu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamutu xaddan mu mel ni soxna Fanta Sall ci loolu lay dox yonte bi dafa waxon yow julit bi fexel ba nga organiser sa aduna bu mu melni ni de waye fexel ba itam manam nga taxawu sa alakhira bu mu melni ni suba ngay de kon lolu liñ ci déggee moy aduna ngay ci la ngay defaree sa alakhira kon lolu rek moy siyasiya ci gatal ci tënk lolu moy batu politique moy nga taxawu sa aduna benen bi itam ku nek rek masul nga képp koo xam ne yàlla jox na la am ndombo tànk kullukum ra'in te kullu kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi maanaam ku nekk li la yàlla jox ak li la yàlla fal dañ la laaj kémtulaayu kàttan ci loolu loo ci liggéeyal lislaam ak loo ci liggéeyal loo ci liggéey sa digganteeg sa borom kon bëri na ñoo xam ne am nañu ay ndombo tànk yu toll ni yu fanta am wala lu euh, euh, sëñ bi am mais xalaatuñ lu mel ni te loolu kon liggéeyaluñ ëllëg seen diina dara beneen bi mooy maanaam islaam jàkka ak juma importance bi ci nekk ci jullit ñi war nañ xam ne yonente bi sallallahu bi mu jógee ko màkka jëm Medina nga xam ne xat na màkka am na fa ay jafe-jafe léegi nag yàlla nee na ko jëlal lislaam nga toxal ko Medina ndax ñooñu ñoom bëgg nañ lislaam woo nañ la te man yàlla nee naa la nga dem bi mu ñëwee ànd ak bi mu ñëwee ba ci dëkk ba e, gëléem gi di dox yonte bi sallallahu alayhi gaa yi ku nekk ñëw ne sama kër ngay dal mu ne ko mu ne leen xalloo sabilaha fa innaha mamuura bàyyi leen gëlëm gi rek mu dox moom ci ndigal lay dox te fi mu war a njëkk a tëdd foofu yàlla nee na jumaa lañ fay def xoolal ma yàlla talut ne ko gëlëm gi fi muy njëkk a tëdd sa kër la wala nangam la waaye def ne fi mu njëkk a tëdd avant dara di xew foofu moom jumaa la nga xool ni yàlla yittalee juma ak ni lislaam yittalee juma kon loolu mooy li sëñ bi doon wax léegi rek wa anal masajida lillah adduna bi ba mu daj kër yi yu rafet lu kër rafet rafet lu kër foor foor foor yàlla nee na du sama kër yàlla ne benn kër rek laa am ci dëkk bu nekk mooy jàkka ja mbaa jumaa ja kon bu fekkee ne loolu am na ñu am yaakaar ne nag loolu mu bàyyaa la ndax yónnante bi da ko doon wax qul innama ana basarun mislukum yuuhaa ilayya innama ilahukum ilahun wahid maanaam yàlla yónnente bi wax na ne man nit laa rek comme yéen mais li li nga xam ne mooy sama différence ak yéen mooy dafa am lu ma yàlla jox muy benn mission boo xam ne ci ngeen war a jaar ndax yàlla def ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ni li ma bindee nit ak jinne mooy ngeen jaamu ma ñun ñuy toog fii ku nekk am na loo xam ne sa yitte la lu bokkul ak jaamu yàlla xaj na defar sa kër defar sa bopp wut sa avancement defar sa njaboot waaye yàlla li ko ñor si ñun du loolu yëpp mooy ñu jaamu ko te jaamu bi li si jiitu mooy julli julli mooy premier ponk boo xam ne mooy mooy premier ponk boo xam ne maanaam ci moo tënk lépp ci gàttal li may jeexale comme que waxtu bi dafa xat mooy fanta lim def mu bàyyaa la seen diggante ak moom yàlla waxoon na in tanzurullaha yanzurukum wa yusabbit ahdaamakum bu ngeen jàppalee yàlla te jàppale yàlla yàlla béylu tool yàlla amul euh, kër guñ koy am yàlla euh, soxlawul dépense si ni ni ñu koy jàppalee ci nan la mooy tabax ay jàkka tabax ay jumaa kon kii jàppale yàlla nee na yàlla nee na dig naa la dinaa la dinaa la taxaw kon kii yàlla nar a taxaw bu fekkee indi na la lu mel nii lii la war mooy gee geegu ngeen faslante nga fexe mottali ko xam ne yàlla ngi si biir boo ko mottaliwut day mel ni yàlla nga wor waaye du moom nga wor asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mook safiitu job ki jur sama Mam ibrahima sar ñoo bokku ben bay kon fi sama dekk la kon suma ñewé ba fi rek sanni kaddu euh di len ko jaxal di wax ne setu alaaj ibrahima sar la mo sar moy sama nijaay di wax yàlla nako yalla yeeram xare ko aljana na dem di noflayam yàlla na rich lum mu doon def ci aduna mo domam jooju yàlla na dem di sen noflay yàlla na sen sarax yag sen loxo ci barke sayidina Muhammad, kaddu yoy la ci doon sanni rek wa kay jere ngeen jëf merci. fatihi ñati salatul fatihi bu ken fatte nak aajo sahiri ak yi ni ken ku ne ya gëna xam sa aajo te faju kayu aajo la yombul de yombul de nañu dawal xel yi ci aajo yi yépp nak bu ken xeb dara bu ken xeb dara bu ken xeb dara bismillah Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إذ أنت ما حملته على الذين من قبلنا ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen bokk jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi leen nuyu ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam boo leen déggee jàng yi nga xamante ni ah mënaan leen am na xew-xew bu mag bu daal di doon am ñan ñoo ko xewaloo mën a kii di honorable député Fanta Sall kat moo defoon benn ubbitu juma di inauguration waaye loolu kañ fan la amee mi ngi amee foofu si Medina Ndiobène ñu gën ko xam si ñaari laam ma ne ah ki nga xamante ni mooy honorable député Fanta Sall nag moom ubbitu jumaa boobu moo ko loon waaye nag mu ngi si yebal ndawam yi ki nga xamante ni mooy monsieur Barry ànd ak seeg ñi nga xamante ni mooy yeneen naataangoom ñi nga xamante ni ñoo ànd ak honorable député Fanta Sall waaye nag bu ñu waxee Ndiobène mu nekk ci ñaari làmb mu ngi nekk si commune bi nga xamante ni mooy Missirah Wadène kon nag bés boobu ah man yëpp tay la woon waaye nag ñu ngi koy yëgal waa département bi di koy yëgal waa commune bu Missirah Wadène di wax rek ne ah huitude juma bi nga xamante ni moo daal dina am di honorable député Fanta Sall moo ko waraloon waaye nag loolu waa firi daal di ci ànd ak yéen